frère Modou lool duñ def lu dul nag waxtaan ak moom ci li nga xamante ne ci la njug muy làmb bi passé le 13 mu wax ñu li nga xamante ne loolu la xalaat ak li nga xamante ne loolu la jàngat ci émission Peul Fun Time nee naa leen du ay caaxaan góor gi maa ngi di la jaajëfal. waa góor gi ma bàyyi la ak àdduna rek nga nuyoog àdduna su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi fii waaj. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Sunugal di lay rafetlu seen site bournaes bi nag dëgg sa yàlla parce que lépp fi la war a leere te fi lay leere maa leen di sant di leen gërëm di leen nuyu bu baax ku nekk sa tur ak sant waaw pël bu rafet li ma bëgg li nga wax sànq dañ si dellusiwaat benn benn parce que doomu aadama bàyyi ay item dagg léppam ñëw toog si écran pour am loo xam daf ko war a décortiquer am na lu ko ñor kon olof Njaay day faral di wax naan lu yëngu ne la ko yëngala ko ëpp doole tey jii nii boo ma doon wax sa relation ak Modou Lo ci lañ jëm ba pare lan nga may wax seen relation yéen waaw suma relation man ak Modou du làmb waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat du làmb Modou ba ñuy ànd depuis ñu nekk booy lan moom mu nekk si oto papam bu wàccee day ñëw toog su at atelier xar papam pare mu ànd ak paa ñibbi. buur yenn saa day ñëw toog ma ne ko mu de dama xiif sax mu ne ma kaan ànd dem si say ñebe ñu dem reer yi ndékki ji su ndee mu pee moom parce que nit ku baax la lépp lu moom bokk na ko ay nitam su ma sonnoon si moom lu ma ji moo tax parce que olof Njaay nee na xaw ma nu may def ki nit ki mais nan la dafa tax. soo xamul nooy def nit ki nam la defaat. moo tax voilà moo tax maa ngi sama ànd ak moom du làmb depuis ñu nekk booy la ñun ñaar waa ñu jóge ci li nga xamante ne mooy treize ci làmb ju mag jooju ci digganteem moom ak Balla Gaye tey boo ma doon wax làmb ji li nga ci gis ci diggante ñaari mbër yi lan nga may wax ak défaite bi nan ngeen koy dundee yéen waa Parcelles. waaw défaite bi metti na méttiwul parce que boo déggee mën na la metti na méttiwul Moodu heure bu jigéen laal Balla Gaye am ñu jug Moodu heure bu ne coos si Balla Gaye am ñu jóg te Moodu doomu jàmbur la Moodu am na jabar am nay mag am nay rak am nay am di jàmm kon ñépp ñi nga xam ne ñoo jug pare pour yàqal ko du ñoom ak Modou de ñoom du ñoom ak Modou Lo. ñoom ak la. benn si man lañ koy commencé. ci naka ci ban côté. si zaar ak si baatin Modou ba lañ koo tër nan jaar si man tër ma ba pare. doog àgg si Modou. da dañoo bëgg a tër lu leer si lu leer man du waxantu te li ma lay wax su ma paree mën naa leen jox suma numéro Gaston Mbengue Aziz Ndiaye Balla Gaye ba si Ama Balde fu ma woo ma wuy leen. ñoom ñooñu ñi waaw ñooñu ma lim noonu. dafa jeex mu bëri coow ci que euh, promoteurs yi. ñii ne Gaston moo ko tëgg ñii ne Aziz moo ko tëgg mais dañoo jël Gaston def ko ci ginnaaw Aziz naka nga ko jàngatee bi combat bi jeexee Aziz ne moom moo génnee deux cent millions fay mbër ku ne ba pare jëlaat cent et quelques millions defaat ko ci Balla Gaye loolu naka nga ko gisee. mais effectivement Aziz moo tëgg làmb ji Aziz moo tëgg làmb ji mais ñu doon yéex a xam avant ñuy xam c'est trop tard avant ñuy xam c'est trop tard. parce que Aziz moom moo toog décortiqué si télé bi après combat bi mu ne moom moo fay Balla Gaye cent millions fay Modou Lo cent millions yëkkati cent cinquante million pour mystique Balla Gaye am ndaw si ko Modou Lo mais Aziz bett nga ma rusloo nga ma Aziz yow dama yaakaaroon benn keneen moo war a mën a def loolu ba mu des yow parce que yow am na loo xam ne war nga ko mën a jariñ si réew mi am na foo leneen loo mën a taxu réew mi que jël ay cent cinquante million di ko def si doomu aadama bi pour rien gàllankoor ko Aziz yow man sa bopp xam naa xamoo ma kanam bi mais man xam naa la bu baax a baax a xam fa nga jugee bu baax tamit am na fi xaalis bi mu ngi jël def ko cent cinquante millions pour rien que Modou am na feneen fu mu xajoon. comme fa mu dëkk di kër Samba Kane Njarno et am fa la dëkk seen tali baaxul seen amuñu ndox ndox normal. lu gën a rafet sax waxuma la cent millions mais cinquante millions boo ko yëkkati woon def ko sa réew ma ëllëg boo demee demandé maire bi ñu la ko mais moo gën nga yëkkati cent cinquante millions si doomu jàmbur doom benn benn nga bëgg ko faagaagal benn Baye Ndiaye di rakam man gis naa ko si soit kii dañu euh, dañu euh, sotti Balla Gaye bi ak Modou seen soirée gala si boppam moom mooy jël saafara yi di ko diw si fi Modou doon toog. Aziz Ndiaye suuf bi ndef si géew bi ñaata fan la ne géejawaay seen sëriñ yi ñaata fan la def si biir stade bi parce que ñoom déjà benn ñoom dafa mel ne xam nga nit di ko laal dafa nga laal du baax si yow da ngay jëfu di wax ñoom la leen di wax la fi mu nekk ñuy génn benn benn xamuñu ko de nit di ko laal te xamu ko nga laal lu mu doon lan la wallahi azim moo am na mbokk am na am di jàmm am na nit ñi. mais damay faral di dégg tamit ci nit yi comme que nee nañ Moodu euh, Balla Aziz Ndiaye moo tëgg làmb ji ba pare faral ko am na ci droit ba Balla doon bëreex Moodu Luc Nicolas da koo faral mais est-ce que Luc da cee fësoon comme fës bii. non Luc fësu si Luc musul def lu ñaw man ni benn yoon laa ko a gisee. waaw benn yoon laa ko a gisee mosuma gis mu def lu ñaaw wala mu wax ko ku dee sa bàmmeel mosuma ko gis si yaa ngi nit ki mën nga far. tam bañ a fees promoteur nga Aziz dafa demoon bàyyi na demoon bàyyi na làmb mu dem ba si biir bu Gasson nekk si côté yow da boo nee bàyyi nga làmb ba dem ba sa kilifa moo la wax nga pour nga bàyyi làmb essayé ma la man dama yaakaar nit da nga war a sàmm sa kàddu parce que doomu aadama sa kàddu nga am. kii di dagg ay cëram di ko tayle est-ce ngi dama la kii di jël 150 millions hôpital yi ñu ngi fi. kan moo hôpital yi ñu ngi fi. Aziz na ma déglu hôpital yi mi ngi fi yaa ngi dégg ah, nu ko waxeeti ñi ñu sonn ñi ñi ngi fi am nañu bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndékki aussi yaa ngi am na cas social xam ne ñu bari si hôpital yi war a mën a dem nemmeeku ñooñu yëkkati ku nekk dara mu dimbalee la ko ñu am si mu si yàlla suñu borom yaa ngi dégg lu ma la wax mais pas jël sa 150 millions yaa ngi ma la parce que Aziz gis seetlu ay kii yu bari sotti yoo xam mais dafa lu baax ko moom xaalis bu mu am. xaalis man nga am mais bu ko baa ko parce que yàlla suram mayewul dafa dénkaane te bés dina ñëw nga rendu ko kon alal bi na jox noo ko def da nga yaakaar dërëm boo am bu alaaxira boo tëddee du la laaj foo jëlee dërëm boobu noonu bu lewee mu sens bu lewul dërëm bu nekk di nga ko yan ay tonnes di dox ba fu borom nekk nga déposé ko ko kon alal bu la ko su borom bi dénkee bul ko baax ko si kaw doomu aadama yi yaa ngi ma mu di rëy à cent cinquante millions aji frais deux cent milliards frais deux cent milliards yaanu ma la boo ko feree soo xam ne duggul fu mu war a dugg amul sens dugal ko fu mu war a dugg mën na dimbali doomu aadama yi mais cent cinquante millions yi yéegti ko ngir faagaagal doomu aadama def si ay xërëm ay fétiche yu bon yaanu ma la ngir benn doomu aadama ah yéen ñi seen mouvement bi mouvement bi ngeen ñëw naa ko déggati foofu naa fa ñëw sax mouvement bi ma bëgg a déggati ko mooy ànd coalition Sot Moodu yaa dañoo def coalition. coalition bu mag lan def ànd Sot Moodu kan Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Gaston Balla Gaye Ama Baldé Ousmane Diop yaa ngi dégg Baye Mandione mbër mbër mais Baye Mandione moom kenn dégg ko ci affaire yi waaye yow defu suuf defu suuf ñooñu ñëpp Baye Mandione xam nga tam moom euh, benn côté bi moom su waxee sa du metti parce que xam ma lay xale mu ne téye la defaral la bagage nga jug di wéexaate boo loo def dum saf yaa ngi ma la duma la ba nga kàcc ju image boobu na nga ko seetaan moo da ko daan tim ko mu koy weq yaa ngi duma la kon loolu moom lu mu def amul sens parce que su fekkoon am na lu muy def bay man da koy fexee def daan moom ñaata defe la tegle sat defet xamu yu defet moom moom mooy miin suuf moom jarul koy jàppee doon na ko comprendre quoi yaa ngi dégg. moom Baye Mandione Ousmane Diop ne dem liggéeyi bàyyi na laam ne ut leneen lu mu def. yaa ngi ma la moo gën mu topp si ginnaaw benn mbër du ko. damaa dégg Moustapha Gueye ci coalition bi la bokk ak euh, Baboy. Baboy moom daf ma bett moom il m'a déçu moom Baboy si boppam parce que dafa toog ne Modou suma rakk la Modou suma lépp la Modou maa ko yar effectivement moo ko yar Modou seen gétoo la nekkoon si yaa ngi ma la lu leer laa lay wax Modou. Euh, ak kii yaaram ñoom yaaram géey yëpp nii ngay dégg ah ak nu kootati Mathieu Pereira ah ñoom ñëpp si ga kii keppaaru baabooy lañu yaroo mais baabooy am na xam boo dem ba koy def war nga seet sa diggante ak yàlla sa borom war nga seet ak dëkkandoo yi parce que nit nit nga ma doon soo ko weesoo doon leneen baabooy moom dama jàpp ne xel mi dafa naan huile bu nëb huile bu nëb du xalaat quoi. huile bu nëb dañ koy naan. baabooy da koy naan baabooy day naan huile nëb. sien la kon dama jàpp ne suñu ànd coalition boobu ñu def amul sens parce que benn Gaston Mbengue mag la kilifa la yaa ngi la am na loo xam ne war na ko jomba def xale bu ndaw jiital la di la def loo xamante du dëgg Gaston warul def loolu man kilifa laa Aziz Ndiaye doomu doomu Gaston la bu ko juree jur na commencé Aziz Ndiaye kon Aziz Ndiaye warul mën a jël colomotive Gaston di ko loo xam ne. nekkul si yoon wala wala mu jël jël benn xaaj ëllëg di ko ko fay ngir benn intérêt yaa ma la ngir mu jël def loo xam doomu jàmbur def ko père Gaston am ngay doom xëlëg ëllëg na du añ du reer mais lu jar sóoraale la bés mën nga ñëw li nga leble si doomu jàmbur ñu fay la ko si doom bul meer bul jooy de fàttali ne yaa ko leble woon ñu fay la ko te sunu borom bi nag kaay ma xamal la ñaar de du bàyyi ba nga dee mu la koy wan déedéet dala koon urgent per Gaston li ma la na ko dégg bu baax yaa ngi dégg ma doomu jàmbur bi ngeen jël denc ko génne leen ko. Aziz waaw Aziz Baye Ndiaye. Moodu instant dafa feebar dafa taw. Moodu mi ngi sant yàlla suñu borom mi ngi sant yàlla sëñ ma la du lépp lan mën a wax mais mi ngi sant yàlla suñu borom bu baax parce que ku amul ku am mbokk rek yaa ma la pour nu la ah, mës la man nan laa rey de waaye fan lay suulee na jafe de. wallaay azim te li ma lay wax dinaa ko waxaat. sant sàcc tama yomb na mais tëgg ko mooy. ñoom nag du xumal tëgg sax waaye der baag lan foore tama sax duñ ko am man maa la wax lii nee naa leen Moodu barke Nabil Moustapha laa leen waatal ku ko bëgg a faagagal jaara si man sama bopp jéggi sama kor ba pare dagg àgg si Moodu man ku ma bëgg bëgg maak Moodu ku ma bañ bañ maak Moodu muy si man bo nit ñi ak su may mbokk laa commencé ku ma bëgg bëgg maak Moodu ku ma bañ bañ maak Moodu maak Moodu béykat damay dee. barke nab lu Mustafa la waatal man alal du tax ma jaay suma ngor. mais victoire bi dafa tax ñuy nit yi di wax nee nañ Modou entourage am baaxut ay xale rek lay àndal ma dégg ñu ne ñim doon ñim àndal nii ci la ànd ak ñoom ba daan ñim daan ba tey jii nii problème bi lan la entourage bi ay xale lañ wala mag ñi Modou dafa joteex ñoom walla lan la pour nit yi tamit comprendre. comme que yàlla def na yow yaa sës ci ki nga xamante ne mooy Modou. waaw Modou si côté eh, bi nga wax nii foofu man jàpp naa ne erreur amu fa réeroo amu fa yaa ngi dégg la parce que Modou ay magam ñoo fa nekk ak ay xeetu magam ak ay papaam ak ay nijaayam ñoo fa nekk kon réeroo amul foofu daal di maanaam defet bu ñëwee rek ñëppay wax defet bu ñëwee ñëppay wax. lañu naan làmb bu ñëwee ñëpp së euh, làmb bu ñëwee ñëpp sëriñ lan ful bu ñëpp ñëpp sëriñ lan si ma la kon. maanaam màndum wax bu tojee ñëppay wax. voilà mi ngi noonu mais Modou moom xam na bu fekkee am na ñu ko yàkkal xam na bu fekkee amul ñu ko yàkkal xam na parce que Modou mooy nit boo xamante ni tey jii wallahi Azim mën nga ko mën na meeka yow benn nga ko def lu bon mu xam ko bàyyi la si biir ba pare gën la fat si boppam mooy genre boobu bul yaakaar la nga ko de xam na ko de. Modou lan moo tax euh, à chaque fois moom du nangoo ari annière jomam moo ko moyut wala ngorom la lan moo tax du annière wala moom estafam buy dem di bëre yi duñ wax ak moom. non wàllu gis nga wàllu arrière damay jàpp ne ragal la d'accord sax benn côté bi war nga. bëre ak annière moo ànd wala moom dafay jàpp ne day sóoraale supporters yi de trop ba nga xamante ne bu annière pour moom da leen a yeb comme li ko Balla waxoon rek. yow yaa ma yab mais sa support sa supporter yi ñoo ma yab mais yow yaboo ma mais moom dafa jàpp ne bu arrière rek day doon cuune. non du arrière doon cuune déedéet. bëri ak arrière moo ànd. waaw waaw bëri ak arrière ñoo ànd loo sas dan la koy conseil si anuma la mais gis nga defet su ñëwee. boo su defet daal moom. da ngay réer waxatuma laa defet boo xamante ni dañ laa takk ba mel ni nag bu nu tër. gis nga nag bu ñu ko tëree ñaadu ko mu noonu nu ko neex nga koy rey nu la neex nga koy rey booy bi noonu la ko def. est ma la wal Balla Gaye Bombardier kopp doole nan tegaat vidéo yi ngay xooli ma lu baax Modou nan la def Bombardier maa gëtu moo ko daan mais Bombardier bu waxlee aqulaay taala xam ne Modou mi ngay doole Modou kay neel danoo dem ba sur combat bi nu rocc li mu yor yaa gis nga neex yàlla naqari yàlla defal nga am àdduna mais yàlla nga lay xaar mooy waa géejawaay gis nga kii di Balla Gaye Euh, Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ba si Ama Balde Sa Thiès ñoom làmb jaral na leen loo xamante ni jaral ko muudu man lu ma leer laa wax yaa ngi dégg parce que euh, ñoom li ma la boo déggee ma la ñoom li ñoom genre fétiche xërëm yu bon yi ñor làmb yow làmb jaral na la nga dem ba si àll ba xaw ma Nigéria la xaw fu mu doon nga sol pàcc boo xamante ni sa jamono la jot la nga ko gis yaa ngi dégg nga jël say njaq di toj. Siyaan ma la jël sa ginnaaw dagg ko teg comprendre nga ma la ah, Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye barkeen Nabil Moustapha laa la waatal bu xamoon li muy def li muy def fa muy tourné fa mu koy féete ji après dina bàyyi li muy def misigu làmb am na mais na yem na yem mais dem ba nar a rey doomu jàmbur wala faagal doomu jàmbur loolu baaxul yaa ngi dégg ma la parce que Modou ku ko gis Modou ma daan bëri te xam ne nekkul Modou mi moo ñëw si boobu si làmb bi Modou ba naan ñëw si làmb nekkul Modou boobu moo ñëw moom tey boo ko posé une question dana wax li nga xam ne moo lu lu nekk la parce que moom du duñ ko daan ba pare muy salteel du ko def mais ñun ànd ak moom nekka moom xam nañ kii ban genre la est ce que parce que moom daa ko day bëre day mystique mais wallaay làmb jaralu ko yenn yi li man maa la ko wax làmb jarul ko yenn yi moom. science ma la parce que Aziz Ndiaye cent fay nga fay nga fay na Balla Gaye 100 fay Modou Lo 100 millions yëkkati wax 150 millions rien que bis maanaam moom lam def si musique moo lan fay mbër mi kon yow koy pare na da doon bëgg a rey rey la bëggoon di yaa ngi la mais dama la ko dama ko bëgg a xamal ne ko li ñuy def si làmb ji moom Balla Gaye ah, Gaston Mbengue Aziz Ndiaye Ama Balde Baye nañ ko bàyyi te Ama Baldé mi dem genre coalition ànd ak Balla Gaye ma nee na Balla Gaye magam la Ama Baldé ak Sa Thiès bu neex la Ama Baldé ak Sa Thiès bu neex la mais affaire daw laax moo war a jël si làmb parce que ñoom nee na a ñu ngi naan làmb day waaj yàqu ñoom ñoo ñaar a yàq làmb parce que li ñu def Modou nii benn Gaston moom mënatul wax ba tëggal Modou combat Aziz Ndiaye waxi nopp mais loolu foofu laa bëggoon ñu wax yow comme niñ fësalee seen bopp ci combat Modou ak Balla est-ce que buñ buggee tëggaat waxuma la sax Modou mais buñ bëggee tëggaat combat diggante Balla ak keneen est-ce que dina ñoom loolu dina doxal seen liggéey. loolu moo tax ma ne cuune lan ñoom cuune lan parce que ñoom déjà benn ñoom ñi ngi def ba pare di génn di mbel mbelis di wax fu nekk mel ni ku jëfur yaa ma la kan laal la nag kanu laal moo waral jëfur gi. yaa ma la te néew ma la wax fi la de billaahi dinañ wax benn benn